kàddu yu gàtt la doon yu jëm ci jëwriñam jii di sëriñ Cheikh Jëmbu Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima gépp bàyyiwuñ kenn sëriñ bi di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen pastéef ak seen taxawaay ndax Cheikh Maodo Mountakha Mbacké dafa wax ne bu ngeen fàttali ko daaw bi nga xam ne waa Touba kanam jëndoon nañ ay camion yoo andi ko ci dëkk bi daf leen waxoon ni leen jëf ju rëy nii màgge nii amul kenn ku ma ko war ci loxoom ku ko yeewu ku du njaboru Cheikh Ibra kon moom xam na njaboru Cheikh Ibra li ñu doon ci yoon nit ki nga xam ne mboolem kilifaam yoo ko fi jëkk yëpp di njaboru Serigne Touba ndax maa ngi koy fàttali bu yàggut Serigne Saliou Mbacké nangoo naa ci lam ngir foog bu ko fonkoon moo njaboru suñ tubaa gépp nag boo ci xasee tudd kenn rek tuddaale ñu ci des waaye ñoom ñëpp benn àtt bi ak benn taxawaay bi lañ amoon ci Seex Ibra koo ci wéetal boo ko tuddee am na coono ak cofeel ak ko fonkeel goo xam ne kenn xamul fu mu yem Sëriñ Saliou Mbàkke nag da koo tënkoon ci kàddu yu gàtt bu wax ne Seex Ibra de ñëpp ko ameeru cant ak ngërëm ndax buñ jaroñoo ci Sëriñ Tuubaa moo tax bu toona loolu lépp nag képp ku bokk ci Serigne Touba ku ne Cheikh Ibrahima ni mu bëggee Serigne Touba képp ku bokk Serigne Touba ku ne war nga ko amalub cofeel ndax moom dafa bëgg sëriñ bi ba xolam dara xajaatu ji lu may Serigne bi. bë bëggut bëggut adduna ragalul sawara bëggut àjjana Serigne Touba rek la bëgg. moo tax Serigne Touba it fayee ko lii mu ko fayee ci biir xol yi kon Serigne Cheikh Serigne bi nee na mi ngi lay sant di sant mboolem sarak yu topp sa ginnaaw. ak mboolem seex yi nga xam ne maam seex bi mboolem seexal ak mboolem taalib yi di gërëm itam nag mboolem yoon muur yépp ndax buñ tegee ab liggéey ci loxolu sëriñ seex jëmm képp ku yaakaar sëriñ Tuubaa tàbbi nga ci biir kon sëriñ bi nee na mi ngi digga taalibe sëriñ Tuubaa yépp lépp ci waaye mën a jëf nga jëf ko ngir xam ne jëpp jëf yu ñu jëfal sëriñ Tuubaa te jaar ko ci seex ba yoon yoon bu ko gën a gaaw amul kon mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te du leen sonn ndax yéen xam na li ngeen def ni ko Serigne Fall waxee waaye juróom wa Serigne Mour da daa def bu ndigal bàyyi koo ci Serigne Touba ñëw ci moom ka ko indi di yëkkati àddee jox la maa ngi lay sant te loolu ca maamam jël ko jëloon. jabaru seex bi gépp kon ñoom fu ñu toog xam na ne ndigal leen fa bàyyi ku toog ci barab di fa xaar mbir nag bu loola accès te moo la bàyyi ci àdduna loolu doo ko fooy moo tax keroog ba ma Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yónnee. mu ànd ak Serigne Cheikh mii ñëw ci sëriñ bi yëkkati ndigal li jox ko booba rek lañ ci nopp ndax wóor na ko ne du leen ko fàttali leen ko soññ ndax xam na ne wóor na ko ne ni mu leen itteele eh, dara mënu caa dolli ko kon mi ngi leen mi ngi koy ñaaral moom mii nga xam ne moom la ko teg ci loxoom ni ki mu ko defoon ci liggéey yoo ko jëkk rek suñu borom may ko kattan ak wér mu ànd kook rakkam yëpp nag ba liggey bi sotti ba mu ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ba yenen digge top ci ndax yen kat da ngeen amul ben yite loolu digge seigne touba sen dundu gep ci seigne touba ngeen ko jexal sen sen goudi ak sen bëccëg eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha masta naa daw daaw seigne assane asan mi ngi mu ser ko mu ne Baye Fall mom mom dañu kima ndax ñom dañu bëgg dara far ndax ko xane keur gu rafet sa bëggoo ko loolu tawfeex ja ju leen eh, seen maam di deglem kër gu rafet ne kuy yëkkati ay téeméeri million di ko joxe àddina te baase fekku ci néegum ñax loolu jabaru seex ba képp loo ko suñu borom jagleel ci yi kon nag yéen ku jataay bii na ku fi ñëw te amub yëg-yëg wala sa posteef ji dëggu da am lu bari loolu ndax ku fi teew man sama jëm bopp de naa loo xam ne gis naa ko ci takk ak posteef ma bi seen ak yitte ju kon nag jàpp naa ne sax du jataayu wax jataayu jëf rek la kon nag ne ñëpp fetliwaat seen yitte fetliwaat seen laxasaay ndax nii ko suñ Cheikh waxee léegi rek sëñ Fallou waxee ko ni ku fi ñëw dalay fàttali li nga xam ne daa nga ko dégg muy ca carrière ndokk ba ci jamono Cheikh Mamadou Fallou waaye ku ku fàttali ko la fàttali jamonoy eh, Cheikh Saliou Mbacké ci liggéeyu xel ko loolu la ma jataay bi joxaat kon nag mboolem njëfteer ñëpp yal na suñu borom kàttanal ba ku ci ne la ci bëgg jëf nga dee ci tawféex ba jëf ci ndax mbirum Serigne Touba jëf rek moo ci maye wax mayewu ci ndax sëriñ bi damay wax ne istara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna dañoo jaay suñu jëmm jaay suñu alal jaayee ko ngërëmu Serigne Touba te mooy ngërëmu jàll suñu borom ولله من الله أكبر سالك فصل عظيم سرين بنك بفك كنت أنا كن ما نجار من جموم تلو أكتال به كن جو ربك من بدون جبر جموم وأخم جم خم نلم أم ما يوك سرخ وكره جاي ما رشيا محمد مصطفى سيا محمد فادي سيد مروقي بسون أكسرين ما سام بمكة موحلين نلن لفينك كن موني تجور تجاي وسنجوري جنوب تاني كن كن موني تجور لورنك ci wane yoon wi mooy Cheikh maam Cheikh Ibrahima kon nag jëf jii nga xam ne Serigne sant na ko Cheikh Ibrahima la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon dafa waxoon ne kër Serigne Touba ak kër Cheikh Ibrahima ci ne am mbañ nee na kër Serigne Touba mbañam mooy ñàkk joxe ndigal kër Cheikh Ibrahima mbañam mooy ñàkk topp ndigal nag kon jataay bi mel na ñaar yëpp dàqu na ci ndax Serigne Touba joxe na ndigal kër Cheikh Ibrahima jëfe na ndigal kon nag la ci des mooy yaakaar. ndimbalu yàlla ak yaakaar tawféex ak yaakaar ngërëmu Sëriñ Tuubaa di jéggu li Sëriñ Cheikh jëm bu ndax jataay bi yàgg na yàgg na coom te xamuñu woon ne day ñëw ndax ku ne xam ne am na ngànt loolu waral yeex agsi bi ak yow di xaw xat waaye ñu ngi jéggu ci jataay bi nga ko fi yàggaloo di gërëm nag mboolem ñu fi teew ñëpp jërul del siwaat ndax Sëriñ Moustapha suñ doom ji lim na ko waaye ñuy siyaare rek sëñ Abdoulahi Mbacke yàlla boobu mi nga xam ne képp ko ñëw ba ca barab bi xam ne moo fi teewal borom saam faw nga jot li ko nuyu ak cant ak ngërëm di nuyu ñi nga xam ne ñooy yenn kër yi fi diine yi fi teew yëpp di njabootu sëñ Bousso bi ak mboolem ñi fi teew ñëpp di nuyu ñi fi teewal nguur gi te buñ fi tuddee préfet tudd ci Abdou Mbacke Ndaw tudd ci garab ba mu yóbbaale ci des ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh